dikkati naa lu politique bi dans na Sénégal déglu leen ma 24 heures yéen kaay naan man seeni doom kay ñi ngi des ci géej gi horizon sans frontière ma ngay xam le ni lu toll ci juróom-ñett fukk ci ay doomu Sénégal yoo xam ne ñi ngi bàyyeekoo woon ca Kayaar daal dinañuy réer mër ci géej gi libération yéen a kaay naan koon kaay maa mën maa ëpp doole ca Barça wala Barzak gi la ñu daal di demoon lu toll ci fukki fan ak juróom-ñaar ñi ngi ni seen gaal daal di réer mër Boubacar Seye naan ëpp nañ juróom fukk ci ay doomu aadama bokk na ci ñoom ay soxna yu sakkan lool waaye itam ay tuut tànk yoo xam ne ña nga woon ca gaal ga gaawu bi rek gaawu bi yéen kaay bi naan maan lu toll ci junni ñaari téeméer fukk ak benn ci doomu aadama bàyyeekoo nañ Sénégal yegg foofee ca Espagne am na ci ñoo xam ne ñi ngi versé seen xaalis xam nga fu ñu mujjee teer ca Ngor ñi ca des daal di teer ca Géejawaay ñetti téeméer juróom benn fukk ak benn ñoo xam ne noonu màngaani moom marin bu senegal jàpp na leen diggante ñaar fukk ak ñaar fukki fan benn ci weeru octobre bi xale yi dem mel ni yaakaar moo juddootul ci réew mi turbine yéen kaay naan maan waxtu wow daal réewum Sénégal kumba am nday ak kumba amul nday moo am ci réew mi Amadou ngay campagne wel ci réewum Sénégal moom ba premier ministre bi nag gàddu ay walisam moom Amadou Ba fu ko neex teg ay ñooñu mit di ko campagnal yéeni kaayib dee média bi naan maan moom Malick Gakou moom dañ ko téye ci bët gànnaaru réew mi ba Babacar Sall ñu ne ko fim la moom doo fi dugg gendarmerie bi daal di koy téye te lii ma ni la njëkkoon na ci Bougane Gueye Dany keroog ba nga xam ne ca Koussanar téye woon nañ ko fa mu demoon nag ca Xosanto gannaaw bi nga xam ne ay jaamaarloo amoon na diggante takk der ga ak askan wa ba ñu faat fa ay nit moom keroog karawaanu bugaan ba dañu koo téye ca kusaanaar ne ko yow njiital gëm sa bopp doo dem doo dikk taxawal fii riigu Pape Moussa Traoré naan ci ban réew la ñu nekk réew moo xam ne mani la candidat Benno Bokk Yaakaar moom buy jàll muy campagne ak muy conseil des ministres décentralisé lépp lu capp-cappal la rek faar ko maquillage ko campagne électorale la mani la ngir wutum parrainage mooy dëgg fu neex Amadou daal moom man na jaar waaye ña nga xam ne àndu ñoog moom mani la fu ñu leen labaa vox populi naan man en tout cas waay feu vert nag ñu tegal ko candidat Benno Bokk Yaakaar bi moom Amadou Ba ne ko jàllal foo jaar yoon la police ak gendarmerie nag di régler circulation boo xam ne ñii dañ leen di kàlla ña ca des moom ñu ni leen jàll leen ma nga woon ca bët gànnaaru réew ma moom Amadou Ba niki noonu ca Louga def tournée économique waaye tam politique mi mi ture kon du tey moo am ci réew mi Abdou Khadre Sanogo naan dara lii daal ab rawante la ba ñu yeggee ba ca piste ba ba rangaloo ñu téye tànk ñëpp ne Amadou Ba candidat majorité bi yow jiitul sànnil ba jiitu say adversaire Amadou nag di daw ndax gars yi daañu ko dab turbine yéene kaay ne ma ca yàllay tey moom ma ngay déroulé di waaye bu mu xam gars yi opposition bi nag ci naka la ñuy daal di déroulé critique yéene kaay naan man en tout cas gëm sa bopp moom ci lu toll ci juróomi téeméer juróom fukk ak juróom-ñaar ci commune ci réew mi taxaw na ca le mandat yéene kaay naan man bugaan géy dani daal di takku moo gëm sa bopp ba mel ni sayub naanaa fas yéene soobu moom ci wutu parrainage gi ci commune ci réew mi yëpp sa bopp taxaw fa waa grand place naan kon lu facilitateur yu gëm sa bopp day daal dina ñuy soobu ci collecte de parrainage yi yéene kaay bi naan maan diggante Kaffrine Tiwaawan Touba ak Mbacké Kër Massar ak Ndakaaru gëm sa bopp nga ca parrainage l'indépendant yéene kaay naan maan réew mi fenn desul la voix du sud naan maan gëm sa bopp daal dinay jiitu yeneen candidat ya soobu nag ci collecte de parrainage bi bal tàkkul sagar xeeñul point ak ci naan maan Bougane Gueye Dany daal dënn la jëlee parrainage yi ca moom lu toll ci fukki junniy parrain amoon nañ ko ba nuppi fi nag daal dinañuy ngemb ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ciy facilitateur 24 heures yéen a kaay naan maan ñu daal di leen di wasaare ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci commune ci réew mi le point ak ci naan maan buñ ca noppee campagne collecte parrainage bi day ma ne la daañu ko tëj di beer ñaar fukki fan ci weeru novembre ca Jurbel clôture populaire nag lañ koy daal di amalee ndax gaa daar daar lu ëpp ñaari téeméeri junni ci parrain daal di nañ koy dajaleel bugaan géy dani ñoom waa gëm sa bopp ndeke li coow li bari bari gaa yaa ngi ci suuf di collecté ay parrainage ak liggéey turbine yéen a naan kon uh-huh, yaa ngi dajale de waaye ma ne la sa boo boobee soo moytul ñu lànkal la ko niki nañ la ko defalee woon ca kusaanaar gannaaw ba ngay dem di nemmeeku ma ne nemmeeku kese ñoo xam ne dañoo loru am nu am ay gaañu-gaañu ciy jaamaarloo diggante takk der ak askan yéeni kaayub dee média bi naan kon gannaaw bañ lay gàntal di gàntal Malick Gakou Khalifa Babacar Sall moom Amadou Ba ci boppam mi ngi campagne ci biir réew mi l'évidence yéeni kaay naan kon Omar Sarr ca Dagana ma nga naan kon foo jaar yoon la Omar Sarr ba mar dey atumata Niang ba ca Grand Yoff it lu toll ci ñetti junni ci parrain daal dina koy jébbal ni ki démb Abdou Karim Fofana ne ko jox ko Amadou Ba ndaw yi ci boppam ñook ko dajaleel fii ci Grand Yoff waa Grand Place naan maan Abdoulaye Diagne moom lañ dénk parrainage bi ci Benno Bokk Yaakaar ma ngay xamle ni gaay yi ñi ngi def seen kéemtalaay kattan gi dajaleel amadu Ba mii moom mi jiite élève ak étudiant yu APR yi ne boole xol yi mooy dëgg suñu ko deful daal lu ne mën naa am ci élection présidentielle yi li ñu metti ak li ñu neex nañ ko teg fële fas yéene ngeen mën a continuité am ci réew mi mi turbine yéen kaay naan kon ba nii ngeen ni campagne amul yéen kaay dee média bi naan man soxna ami mbàkkeet lu toll ci juróom benn junni ci parrain dajale na ko diggante ndakaaru daaru musti Fatick Jurbel ak Bambey ak Touba cerewul lii ko dajee naan man Benno Bokk Yaakaar day mu wàññeeku na lool ca diwaanu Matam Abdallah Ba bu coalition ba xam le ni soo moytuwul day daañu am surprise bu mag ci diwaanu Matam te surprise ba nag jiital renfort ne du doon lu ndaw de ndax nag fi mu ne gaa ñëpp bàyyeeku coalition bi ci boppam dafa daal di tas itam las yéene kaay naan koon bun Abdallah jonni taal di xam le ni Amadou Ba mii de ab dauphin la te dauphin mujjantee mooy daal di teer ci géej te lu ci géej daanaka askan wi ci boppam ñoo lay daal di sëqatoo mu lay Camara candidat ci turbine yéene kaay naan déet Sénégal gi nga xam ne bëgg nañ fi campagnal Amadou Ba senegal gii nga xam ne dañ fee bëgg rangool nit ngir mu jëlaat réew mi ci loxol kamu toftaloon Sénégal nga xam ne sénégalais yi dañoo feebar njiital mouvement J'aime le Sénégal ne Sénégal gi nga xam ne l'hôpital yi fees na dell Sénégal gi nga xam ne faju la gën a tal ka wote Sénégal gi nga xam ne njàng meeg njàngale mi mi ngi daal di suuxandi Sénégal gi nga xam ne banlieue bi daanaka mi ngi sukuraat ku ko weddi ñëwal doxantu fi bu ñu taxawee ni Sénégal gii tey mën na tàbbiwaat ci loxol gaayu président Macky Sall dee dañuy nax seen bopp mu laay ne coppite faw mu am ci réew mi mënta ñàkk réew mi daal di jaxasoo daal di lëj l'exclusive yéene kaay naan man ca Bambilor day la fa am ñaaw na lool askan wa am nan ay gaañu gaañu métti yoo xam ne jaay doole ci wàllu suuf moo ko daal di waral turbine yéene kaay naan kon déet benn ci hectare daal la daal di soxal tey ji nag laa lay xamal lan moo waral lu ni mel boroom suuf sa sëriñ son yi bu sekk xamle na ni 2016 ak tey la teg loxo ci suuf soo see jënd ko yore ay këyitam ñaari téeméeri million ci suñuy koppar mu def ko ci te fu des ko xaw nag wane na ni suuf si yëfa ma Dakar Times naan man waxtu woowu jàpp leen ni day maar day taali mi ngi ci buntuk Sénégal yi ak jihadiste yoo xam ne daanaka ñi ngi wër ndoom mu Mali te à tout moment ma la mën nañ dugg fii ci réewum Sénégal turbine sport naan man diggante Ama Baldé ak Modou keroog ca face to face ba Ama Baldé ñëwul Luc Nicolaï dafa mer ba maar day taali tribune yéen a kaay naan kon ñi war a mer kay mooy sénégalais yi Sénégal gii nga xam ne dañu ne fee Ousmane Sonko ma ne la mënta jël fiche de parrainage direction générale des élections ay universitaire di ko ñaawlu ñu ne deeta waaye yeneen opposant yoo xam ne nag ñi ngi sol seen dàll soobu ci campagne bi ñu karkaraatoo leen wër leen ndomb naan leen fii du ngeen fi jaar xam ngeen kan moo am droit jaar ci réew mi campagne ci réew mi moom mooy Amadou Ba tribune yéen a kaay naan man réewum am ndey